billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax leen indilaat seen émission bii nga xam ne mooy attu jàngkatu xasida yi seen télévision bu mag bi murit point info te nag ñu ngi ñëwoon fii ci kër Serigne Mamour Kairé xasida seet si ko pour waxtaan ak moom ci xasida yi niñ ko balaa ñuy tàmbale rek comme niñ ko daan defee balaa ñoo nuyoo dara ñoo baaxoo woon mu mosal ñu dara rek ci xasida ñu ubbee kooko ndax Euh, émission bi noonu la tàmbalee faaw xasaayit la atu xasida yi la kon faaw dañ koy jox rek mu daal di barkeelu ci xasida yi nu mu rek ñu doog a dugg ci waxtaan bi sëñ Mamour a auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala wa mawlana wa ala alihi حمدي وسكري لمن كل بسارة له ردا دون سقط حند سرسارة حمدي وسكري لمن كل بسارة له ردا دون سقط حند سرسارة له صناعي وردوان بلا سقة مسخاد لي من بني ديمان أنسارا لله كل ليلة بار مكرمة من ارتعنا وفي عجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد خسدوا يا رتي فارخ الدارين أوسارا أجابني خير باخ في خطاب كلي وراخ بمالي خاد اختاب لوجه باح مع الأسجى المبيع لنا عرقت ولج والعمل با بيعت الذي ليس ينحوني ولي بدلي وليولد من كب سعابا إلى سواء يلد تنو مام وبي يسافي إلهي دهر البابا خلوب من لم يبوني على وجل ولا يلاحون ما راموا ولا البابا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 kon bu ko defee rek ñu jublu ci waxtaan wi sëñ Mamour ñoo ngi lay ziar bu baax di am mbégte ak kontante ñëw fii sa kër tey dala dalal ci atu jànkatu xasida yi. salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Jili maa ngi lay ziar bu baax di jiital ci ziar bi eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan suñu borom yàggal ko fi ak njabootu Cheikhul Khadim gi fi des yëpp ñoo ngi leen ziare eh, Touba Mouride Info. Eh, la dala ci yow mii yor kàddu gi jaar ci sëñ Mbàkke ak ñi moo àndal ñëpp ñoo ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal liggéey bi ngeen di liggéey yàlla leen ci yàlla defal lu kawe njott ñoo ngi siyaare itam mboolem seeni auditeurs ak auditrices yi bàyyi xel seen seen site bi di Murit Info kon noo ngi nuyu ñëpp bàyyiwun kenn góor a jigéen mag a ndaw jërëjëf. jërëjëf sëñ Mamour ci kàddu yooyu kàddu yi am na solo lool kon ñu am mbégte rek ñëwaat fii nii. ci seen émission bu mag boobu jànkatu xasida yi ñu seet ci sëriñ Mamor Kayre di suñu xarit di suñu jawriñ ci xasaay di sëriñ Mamor kañ nga dugg ci njàngum xasaayit mi ak lan moo la ci dugal. sëriñ Jili njàngum xasaayit mi yaakaar naa biñ ciy dugg yàgg na waaw ñu ci dugg euh, bi nu nekkee fii ci daara ji ndax li may xam ne sëñ Mbàkke mi comme fii la yaroo ci koñ bi ñu bokk dëkk dee ci xam lu bari fii lan doore xasaayit jàpp naa ne loolu ay quatre vingt dix lu jitu loolu fii lu ko tàmbalee ci sunu waajur yi sëñ Mahamadul Basir mi yoroon daara ji day def guddi alxames ak lu mel ni ay bis laylut xadar wala gàmm mënu daa jàngaloo booba walla sëñ Abdoulahi Seck di doo di génne ay borom baax di jàng ak sëñ Xaadim Géey mi di alajaab lay ñang ñun tam ñu dégg loolu di toppandoo noonu ñuy jàng ak sëriñ donga ci loolu yaakaar naa 91 92 yooyu la boobaak léegi ñu ngi ci mosuñu ci génn itam hmm, boobu doon commencé woon waaw. sëñ Mamour kan la njëkk àndal ci jàngkatu xaside yi ak kan lay toppandoo ci air yi ba tey mu ñëw ci air boppam. waaw sëñ Mamour jàngkatu xasaay di kim ci njëkk àndal fii la woon ci daara ji ku mel ni. sëriñ Malick Fall ñoom daana ànd ak ñoom ndax booba maa ngi jàng waaye booba bu dee topp nag définitivement topp jànkat ci sëriñ Xaadim Biye laa ko mas a def waaye ku mel ni Mara Seck deman naa ba daa ko roy niiru ko booba maa ngi fii bi suñ dawut jàng bu amee programme day ñëw jël si ñu suñ demee ba ci baas buy jàng ba toll maddaa yooyu mu daa def day jël micro bi jox ma may sëy dinaa comme yooyu ñu daa wax loolu defal naa ko sëriñ Mara ay at yu baree bari ànd ak moom waaye nag ginnaaw bi ma fi génnee dama saw bi ma ñëwee ci laa nag continuer ànd ak sëriñ Xaadim gi guddi ak bëccëg ba 2000 euh, euh, daanaka 2009 yëpp sëriñ Xaadim gi laa ko àndal. waaw man euh, maa ngi daa roy sëriñ Mara Seck roy naa ko ba niroo woon ko waaye ginnaaw bi bi ma ànd ak sëriñ Xaadim Gueye ci laa mujj di di di roy Serigne Khadim ngir doomu aadama boo ko jigee di ànd ak moom ni mu jàngee day yomb ci yow ma dégg ni muy jàngee ma ma ma di ko roy ba moom mu aman ci man confiance ci niru gu ma ko xaw a niru ma bari na jàng yu bari yoo xam ne ñu war a jàng sax Khadim Gueye moom moo ko wëlbati ko fu mu mënta dem léeg mu yebal ma fa nga xam ne moom laa roy ba ni ma génn nag daal di yëf jàng sama yëfi bopp nga xam ne mën naa tàmbali tey rajas ba ba asamaan set te duma jàng dara loo xam ne eh, kenn ko jàng waaw. am ñu ma laaj ne ma sëñ Mamor heure bi mu yor bokk na ci heure yi gën a jafe xam nga tey léegi jàngkat bu ne bu jàngee boo ko déggee da nga ne lii am na fu muy jàng mais sëñ Mamor moo dégg muy jàng moom dangay xam ne lii gaam bii mu yor gaamu boppam la léegi loolu jafe loolu ak ñi lay roy maam lu jafee loolu noonu noonu noonu noonu nu mu def ba dikk la noonu daal heure boo eh, heure bi nga xam ne moom nga yor ñu bari di ma wax ne ma sëñ Mamour heure bi muy jàng dafa yombul nga tey bari na ñoo xam ne bu ñu tàmbalee rek seen xaarim gi xam nga eh, am heure am daa yomb mën na ko jàng yu bari foo dajee sax foo ko dee roy di nga bari ñu lay aw mais heure sëñ Mamour fi ko jëlee ak heure bi jafe gi mu jafe. waaw heure bi yaakaar naa ne. fi ma ko jëlee mooy maanaam li may daa def bi set ak di ko xalaat mooy mag ñi fi nekkan heure yu nuy jàng dañ daa royante waaye kenn ku ne da ngay jàng sa baat ba dem loolu rek a fi aman nit du jàng loo xam ne kenn jàng ko koo gis mu jàng rek am na ku muy dégg wala ku ku mu dégg di roy loola eh, yàlla daa dogal nag man bi mooy nekkee ci ginnaaw xaadim di jàng itam bi may jël idée bii nii pour xool eh, nu ma nu ma def ba génn dama jël sama gaam pour xool gaam yi moo mën a composé ba mu mën a nekk loolu laa def man fexe ba di di jël ay gaam di boole ba mu nekk loo xam ne tey mën naa am doo ko dégg da ngay jàpp ne maa ko jàng waaye teewul nag yëf yi faaw nga laal ci yëf yoo xam ne mag ñoo ko jàngal wala yeneen waaye nag dama ko jàng sama baat itam loolu moo waral maanaam ñu baree bari nga xam ne foo toll booy jàng nit ñi xam ne kii amul li muy jàng moo ko moo ko moo ko jàng moo ko moom loolu rek la waaye. dinaa di dégg ay air yu baree bari waaye bu ma ko roy itam na ma ko sama sentir sama baat laa ko jànge loolu moo waral xañ ne ñu baree bari nan foo dégg sëñ Mamour mu jàng mën nga ko ràññee loolu rek la waaye euh, ni ñëpp di royam jàng royee naa noonu jàng gëstoo naa noonu tam am jàng ba yàlla dogal li mu dogal tey jii. Mm-hmm. waaw dina laaj diggante sëñ Mamour ak soppe xam nga jàngkatu xasaayit mënut a ñàkk ay soppe. ñu lay laaj yow ak say soppe nan ngay doxalee ak ñoom. waaw xanaa sant yàlla bu baax ak di leen sant bu baax ndax yàlla dogal na sax xëy na dama ko yaatulu ndax woowoon naa leen waaye mu guddi tuuti soxna yi nekkan fii yëpp mën a te tey ñu dem waaye koñ bi yëpp daayira bu mag a ngi fi boo xam ne ñoom ñii ñëpp mat nañ ci seete dañuy dagg seen yitte di dajale seen alal di la ko jox te Sëñ Tuubaa tax bis bi may def boo ñëwee rek xam ne ñi ngi ci sonn secteur bii yëpp amul koo bàyyi te soppe yi yaatu na ndax jibi mi ko jiite seexu ga la dëkk manam euh, ñeneen ñeneen ñi dëkk euh, quartier bëgg bamba ñom soxna yu bari ñi dëkk gédé ñi dëkk fenen ba génn biir Touba ci ay Dakar jaar Mbour jëm fenen ak fenen kon loolu sëñ Touba tax ndax kurel yi ñu sos ci euh, internet bi ni wala bi sos ci whatsapp bi ñaari ñetti kurel yu soppe la am na ñu nekk taif am ñu nekk Touba am na ñu nekk Dakar waye bu bu événement jot ñom ñep dañuy dajalé dajalo maanaam yëkkati seen alal di la ko jox te Sëñ Tuubaa tax am na ñu fi nekk ni ku mel ni man mi mën la coordination bi ñuy coordonné ñoom pour pour pour pour waxtaan ci seen biir kon nag man awma lu ma leen di fay damay jàpp ne la Sëñ Tuubaa waxan rek euh, bëgguñu sëñ Maamoor xasaay di lan bëgg ndax bu sëñ Maamoor nekkutan ci xasaay di mën naa am duñ ko ko defal kon yow min koy defal nga xam li tax ñu la koy defal danoo bàyyi suñ lépp ànd ak xasaay di xañ na ñoom ñu am yéene ci xasaay di nañu jàppale jànkatu xasaay di la sëñ Tuubaa waxan nag ku jàppale jànkatu xasaay di mën nga jàppale loolu rek la demee ñoom ñuy dagg seen yitte di dagg seen temps di dagg seen nelaw léeg-léeg sax yaa leen di yërëm ci yenn yi ndax bu ngont yi commencé woon tey fii ne ñoom ñëpp dañuy daal dagg fii ne mbooloo mi mën na appeler kuréel gi donc mat na mat na vingt personnes booy xool waxuma la nag ak ak ak ak daay daayira soppi même kër gi donc tey bu ñëwoon fii day fees dell waaye nag maa dem ba xam ne guddi na damaa jàpp ne sax ndax ginnaaw bi wootu waatoo maanaam est-ce que danañ ñëw ba ba ñu bari buñ moykee maanaam le ah wóorugu ba léegi ñëwagul loolu moo waral waaye waaye bu dee soppee moom amuñu seen fay ñi ngi ñi ngi dajale seen addiya di ñu ko jox te sëñ Tuubaa tax ñun tam loolu ñu jox xam nañ ne maanaam yeewuñ ko waaye jëmi sëñ ñu koy def kon nag du ruus mukk lu ñu jox wala lu mën a doon tam ñuy teg suñu tànk foo xam ne bu ëllëgee ñoom duñu gis di ruus tey it ñu won leen waruñu leen won leen lu dul xasaay di te it ñun fu ñu toll ñi ngi jaxasoo ak ñoom lu ci nit xewle tam man dag ma gis incha allahu rabbi noonu laay doxee ak ñoom am ko xamne bi mel ko Mamour la dalal da am ab yobante bu mo yobante dama bëgg nga lajal mako ko ak jànkatu xasaay di nga digganteem ak sëriñ Seexuna Mbàkke seen diggante yee ñaar. waaw diggante ak jankatu di man jankatu xasaay di yëpp samay wóllëre lan ñëpp la jaxol man ñu ci bare bare bëri sama xarit lan loolu la yalla dogal ndax man ma baxo manam ab jànkut xasaay dama koy fonk ni ma comme bu ma la gisan dangay da ngay jàpp ne yow jili rek laa bëgg man naay waxtaane yow ba nga jàpp ne te man fekk noonu laa mel maanaam li ma bëgg mooy sama nawle saa su ma dajeek moom won ko ko maa ngi yow ñoo ay nawle ngir noo bokk pas-pas bàyyi suñu yëpp topp xasaayit Sëñ Tuubaa yi ba tax na jànkati xasaayit yëpp kenn ku ne benn baat la lay seedeel di wax ci yow lu baax waaye ñoom ñoo baax bu dee sama diggante ak Serigne Cheikhouna eh, sëñ sëriñ bi moo nu boole maanaam Sëñ Tuubaa boole ndax danoo àndan di aw kenn ku ne dem bu xool sa jikkoy moroom mu doy la ñuy ànd guddi ak bëccëg bañ na ko ba bu masaa dem fu ñuy jàngi sax ci kuréelu seen xaalis ñooy bokk fu ñu tëdd suy suy jël fu muy tëdd day jël jël damay bàyyil foofa ba ma ñëw lu muy def itam xaar ma ba ma ñëw ma gis cofeel gu mu am ci man ak bëgg gu ma bëgg ak man tam ko bëgg ba ba ba ay mbiram lu mën a doon ba ci soxnaam ju njëkk ak lu mën a doon man maa cay dox wax te am na ay bokk man mi itam bu fi daa génn di dem fenn wala dara wala lu mën a doon damay jël lépp batale ko teewut am na ay bokk waaye nag kóolute gi nu Sëriñ Tuubaa boole moo tax ba nga xam ne dem na ba booy xool jëmmam day mel ni man sama jëmm ko gën a loolee nag muy doxee nga xam ne tuddee na ma doom def taraanga ju mu koy def sama jëmm ji ba adduna bépp saay bokk ak taalibe yi aju ci ñun li ñuy néew néew tam am na mboolu mu bari moo xam ne dañoo yaakaar sëñ Mamour li muy néew néew donte mat na junniy nit wala bokk ëpp na ko te it ñi leen fi indi sëñ Tuubaa rek leen fi indi nga ci daara ñu lay jox seeni doom nga yóbbu ci àll ba yooyu yëpp nga koy def waaye nag euh, defoo ko ngir maanaam lañ ci jublu mooy sëñ Tuubaa mi tax nga koy def loola nag bi ci ànd itam sëñ Cheikh naa war moo yooyu ak euh, yooyu yëpp mu mu koy jox dinu dinu defal lu ne xam na doonte sëñ Tuubaa na defal loola waaye ñu xam cofeel gum am ci ñu ak bëgg gum am ci ñu ñu wëlbati ko delloo ko loola ba fi mu ne euh, bu dee maa moom moom yàlla dogal na ci àdduna moom man nit ku ma wóoloo ni moom bëriwul amul man moom mooy benn xarit xarit mënut ta bari man nga am ay kóllëre yu bari nag waaye xarit moom moom mun ta bari te moom bu def xarit moom wax dëgg yàlla bu yàlla rek tax may wax sama diggante moom mooy sama xarit bi nga xam ne lépp lu may dugg ci àdduna dama ci wax ak moom lu may def itam dama naan ko nangam kaa ñu def nangam wala nangam ak nangam loolu la yàlla dogal. jërëjëf kàddu yi am na solo lool kon ki ma doon yóbbante laaj boobu kon loolu leer na kon nag. dañuy daal di dugg ci njàngum aw mi ku ne xam ne na gaa yaa ngi nii ñu ba jox la rek nga def njàngum aw suñ maam war aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima صلى لي ستي ربي أن صلى صبرا أما تلو النباء والمحسن صورا صلى لي ستي ربي أن صلى صبرا جماعة الحلق وهو مستوى صلت لي ستي ربي أن سبا جماعة الوالي والمحسن سوارا الله لي ستي ربي سوارا جماعة الحلق والموزن مستوى سلت لي ستي ربي أن جماعة الولواء والمحسن سوارا سلت لي ستي ربي سمرا جماعة الحلق والمزل مستوى وجدت واتلا أبدا أبدا قمة برسول الله الكبرى سلاسوا جماعة الحلق والموزل سوا مستوى يعدل بهدايا ما متئنا في اللاتي بسنة بنور سلك البراء سترى سوارا جماعة الحلق سوارا مستوى لعو علي لوجه لا لله ليرمات تزيد زابا والنمرا سترى سوارا سوارا جماعة مستوى خلف الله بل يا ربي أمري ندرتي والتر لجملة الأمراء على لسترا بأسلا سورا جماعة الخوى مستوى عليه سل وسلم بالكريم وعطني الأمن في دارني والبشرى صورا جمال مستوى دعوت ربك اليوم تاقين للنداء أبدا نيفر لجلن والبسرا سورا جماعة مستوى تركت في رجب ما أنت تغلب ربنا نوايا آيا وصورا تركت في رجب ما أنت تغلب ربنا نوايا مستوى تركت في رجب ما أنت تعلم فينا نوايا آيا وسورا تركت في رجب ما أنت تعلم مستوى حبدي عوادا بما ترى من من عمل تركتني حمر يا من عسنا سورا تركت في رجب الماء أنت تعلم صدفا فيا أكرم الخلق إني قادم لك ما بمتن وسب بالخسيدات يا أكرم الخلق إني قادم لك ما وسب مصطفى ولم أوي سرت الدنيا التي تتفت قصة غير بما أسى من أبيات ولم أري فردا بالرجالني ندبا فتي الداس غير بما أسى من أبيات مصطفى بل امتتعتك يا مولاي مبتقيا تريد بعد ما تم خطيئاتي بل امتتعتك يا مولاي فيا من قريدا مصطفى عليك لولا أصحاب خير سلام متنا من بها أو المسيات عليك لولا أصحاب خير سلام قلت ما كبرت دوسيا delluwaat ca gaal ga ay gore la diigal gaal ga delluwaat ca gaal ga gaal ga gore la dee borom Tuuba kabar ca duus wa caggal ga gore la te rey ya digal gal ga dellu wa caggal ga gal ga gore la te rey ya digal gal ga borom Tuuba yow rek a yow mi la tax ñu moom bay feeto yow rek a génn yow tax ñu moom sun bopp tey bay feeto borom Tuuba yow rek a génn réew mi naara diito yaa tax ñu moom sun bopp tey bay feeto minaara di dito yaa tax ñu moom sun borom Tuubaa yow rek a génn réew mi naara diitoo yaa tax ñu moom sun bopp tey bay féetoo baa yow rek a génn réew mi naara a diitoo yaa tax ñu moom sun bopp tey tax ñu moom sun bopp tey bay féetoo yow mi naara diitu diito yaa tax ñu moom borom Tuuba yow rek a génn mi naara diito yaa tax ñu moom sun bopp tey bay féetu waaw yow mi naara diito diito yaa tax ñu rek a génn mina radito yaa tax ñu moom sun bopp tey bay féetoo réew mi naa radito radito yaa tax ñu moom وخليلي وقبن كنت تبيبي وخليلي وقبن كنت تبيبي كنت تبيبي وخليلي لي وقبل كنت تبيبا وخليلي وقبل كنت كنت تبيبي وخليلي وقرن كنت تبيبي وخليلي وقرن كنت تبيبي كنت تبيبي وخليلي وقرن كنت تبيبي وخليلي وقرن كنت تبيبي الكتاب الكريم عن طبيب وخليني وخبن كن تدبيب الكتاب الكريم أنت بيب وخليلي وخبل كنت تبيبا أي ترين توبا يا كتاب الكريم وأنت بيب وخليلي وخبل كنت تبيبا عن تابيب وخليلا وقبل كل نبيلا أيترنتما يا كتاب الكريم عن تابيب وخليلي وخمن كن تدبيبا عن تبيب وخليل وقبل كل تتبيب أي برم جاري عن تقيسي وفقري تجاخي عن كنسي يا فقر كل نبيب يا كتاب الكريم أنت بيبي عن طبيب وخليل وقبل كل تنبيب أيدن توبا يا رسول الكريم وأنت إمامي صندوق خيتة الورى إمامي يا رسول الكريم أنت إمامي أنت إمامي صندوق ay borom tuuma saada rabbi kalayin minallah anjana bi wa kana ya fi amami wa wa numhinallah anjana bi wa kana ya fi amami ay tirin tuuma saada rabbi kalayin جنبي وكان يقيم من سادر نمحينا أجل بي وكان يقيم من أيدرنت ما ساد ربي عين عن كل شيء الله أروني بالمصطفى أمامي ساد ربي لمحين عجل بي وكان يا ay jëriñ Tuuba su ma jooyee dama gisul kama miinoon ma doon ndaw daana yëra nam du ji Tuuba su ma jooyee dama gisul kama miinoon man ki ma bu ma doon ndaw ay dëriñ Tuuba nga la mamar bin la leq fii tegi Tuuba ku ko tëggul du am ci sangi Tuuba nga Tuuba tegi Tuuba ku ko tëggul am ci sangi Tuuba ay dëriñ Tuuba sangi Tuuba dal nu jëfal ku ko sañoo ba mu nekkee Kajoor lu jiitu fa Tuubaa sañu Tuubaa dan loo ka ko sañtoon ba mu nekkee Kajoor lu jiitu fa Tuubaa ay Sëriñ Tuubaa li mu nekkee jëfal na bi ci wala fee ba di tudd Xaadimu Rasuul fa Tuubaa jëfal ci wolof yee. ba di tudd. xaadim rasool ba Tuuba. ay sëriñ Tuuba da de xaadim. jingeen gi xut bu di waasil. fi Tuuba te de xaw kuy wax na fee tele Tuuba. waaw waaw di ngeen gi xut bu di waasil di waasil te de xaw ay dëriñ tuuba gi le tuuba ku yàlla dem di xaritam lanu fay romb de ki dem dem gi le tuuba gi le tuuba ku yàlla dem di xaritam xaritam lanu fay romb de ki dem ay sëriñ Tuuba ku fi gëm lii lañ ñaan ñu roob ko ci suuf si ko ci suuf bu fi dëkkee ëllëg ñu yóbbu ko Tuuba ay sëriñ Tuuba sama seex bee daa bi gën la ma berne li ma berne di ma yaatal ba xëy ma nax ñibbi Tuuba borom Tuuba baax sama jeex bee ma daa bigal la di ma yaatal ba xëy ma nax ñibbi Tuuba borom Tuuba baax li ma berle li ma berle li ma yaatal ba xëy ma nax ñibbi Tuuba borom Tuuba dinu yaatal ba xëy ñu nax ñibbi Tuuba borom Tuuba ma yaatal ba xëy ma nax ku bëgg Sëriñ Bàmba loxo ca kaw dinu yaatal ba xëy ñu nax ñibbi Tuuba borom Tuuba ma yaatal ku bëgg sëriñ bàmbal loxo ca kaw dinu yaatal ba xëy nax ñebbi tuuba borom tuuba ku bëgg sëriñ Mbàkke soxna lu dinu yaatal ñu nax ñibbi Tuuba borom tey ñi fa bay ku bëgg sëriñ Mbàkke soxna lu dinu yaatal ñu nax ñibbi Tuuba borom tey ñi fa bay la ñibbi Tuuba ah li neex na soxna nday mbay Thiam salu mi sax dan na man ko deg muy déyanteeg sama cameraman bi nan ma li neexna na waaye sëñ Mamour damaa bëggoon tuuti ñu waxtaan ci jankatu khassida ak awkat ndax gis nga awkat mënul ñak ci njang mi ta awkat njang mi lu mu lu mu neex neex neex yow mi jang lo jang jang ñi lay aw bu lu ko yene wut du neex way dama gis sa gaay yi bopp yi la yene aw bi lan la leen bu bu baax a baax ci sëñ jili ci loolu nga laaj yàlla dogal na wax dëgg yàlla ñoom ñii ñëpp sëñ ñu boole eh, du du am am du dara ñu boole yàlla dogal na bi ñuy ànd dañu jóge fu sori di dox guddi ak bëccëg amul taw amul naaj te bis bu tey bu ñëwoon boo leen suba dañuy demaat barab sàngam ñoo la fay jiitu te duñ séntu loo leen di jox kon bu dee ay gor la sëñ Fallou waxan boo sànnee ñu aw la yéen yem mooy jàng ak awu dafa ànd kon ñoom ñi te it le may sa say awkatub sëñ Fallou Ndiaye daa wax nga xam ne dañ ko daa daggal bee muy aw ji sëñ Fallou daana wax ne awkat ci boppam mooy ki nga xam ne yàlla dogal na mooy ku ñàkk ki moo koy def ndax ku am daaray ki doo aw doomaa aadama ndax doo bëgg la muy def bu baax kon ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal na ñuy ànd ak yow yéene la li ngay def ñu gën lu ko bëgg nga xam ne dañuy jàpp ñoom loo def ndax loolu dama dalan ci bi ñuy nekk sëriñ Xaadim Gueye lu mu mas a sonn sonn sonn man daw mu xool coono bi xaadim lu mu sonn man maa ko daa soññi ngir njàng mi bu narana tayal sax xool ni ni def dana fexe ba sawar loolu dafa bokk ci awkat yi nga xam ne dañuy dañuy dimbali doomu aadama maanaam dañuy dimbali kuréel dañuy dimbali jànkat jànkat boo xam ne yàlla dogal nga am kuréel gu suudewu ñu mën a aw yéene la ko lépp loo bëgg a def mën ko def te loolu yàlla dogal na ñii ñuy àndal ñun ñëpp suñuy rakkale ndax amul lu ñu boole dañoo bokk mel ni ku bokk ndey ak bàyyi li ñuy doon doon ay xale kenn ku ne am na foo ma teg wàccuwaay boo ma jox boo xam ne yàlla ak Sëriñ Tuubaa rek a tax ak xasaay Sëriñ Tuubaa tey noo ngi leen di sant chaque jour damay wax na leen boo ma sañan yéen a may raw ci njàng mi fopp te loolu wallaahi asim moom laa leen yéene ndax li ñuy def yàgg-yàgg dañ koy bàyyi ñeneen di ko def kon nag rafetalal diggante bi ñu ciy jaar rek ndax ña jiitu woon di jàng ay jànkat lañ tuddan waaye kenn mënu ci woon ñii fi des itam ay jànkat lañ tudd daan dem ba bàyyi ko ñoom ñii ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy nekk relais bu mujj bi ko yor kon jàpp naa ne li ñuy ñaan mooy ñoom ñii ñu bokk ci jànkat yi gën a xew ci àdduna wala ñi nit ñi gën a soxla ci àdduna ndax man ngaa jàng lool sax te nit ñi duñ dun duñ xam njàng ma waaye kon nañ yàlla nañ bokk ci ñoom nit ñi gën a soxla ci àdduna te ñoom ñëpp laa ko ñaanal chaque jour ndax lin ma yéene xam naa bu baax dañuy sonn guddi ak bëccëg ngir suñu jëmm ji te nii ma la ko waxee mbooloo mi ñëw fii yëpp bari nan te bu ñu ñëw doo leen jox paas am na ñoo xam ne dañuy taal seen oto ñëw ñuy liggéey yenn métier yi dañuy yor oto yoo xam ne bu ñuy ñëw dañuy ñëw lu mu guddi guddi ñu taal seen oto ñibbi ñi ci xaw a sore ku si néew ñiy taal seen i moto am ci ñoo xam ne ñi sore ku si néew yow yaa jël sa oto jéem leen a wàcce ji kon man awma awma seenu fay sëñ Tuubaa rek laa leen di bàyyil mu fayal leen boppam ba lépp lu ñu yéene ci xasaay yi ñu am ci lu kawe njort loolu daal leen leen di ñaan waaye awkat moom kenn mënu ko fay loolu mooy li am solo. atu jànkatu xasaay yi la la tudd tey boo ñu ci doon wax ak lu koy jëmale kanam lan nga ñu ci dolli. dafa am solo ndax ndax. liggéey bii ngeen di liggéey daa bokk ci li li tasaare ni jànkat bi jàng ab kaset muy tasaaroo yéen dangeen a bokk ci ñiy tasaare ci liggéeyub Sëñ Tuubaa ndax li ngeen def liggéeyub sañ Tuubaa la nekk ci dëkkub sañ Tuubaa di fexe ñiy yëngu ci mbirum sëriñ bi ñu leen di ràññee ak di leen xam loolu bokk ngeen ci ñiy jàpp ñuy jàpp ci liggéey bi kon bokk ngeen ci ñi Sëñ Tuubaa doon wax ah, li ñu leen ci conseil mooy ñu ñu gën koo yaatal te xam ne jànkat yi moom ci Tuubaa tubaarkàlla rawatina ndaw ñi nga xam ne ñu baree bari xamakul leen ndax amaana sax am sëñ Mamoor wala keneen ak keneen yaa ngi koy dégg ci télé waa nga gis ko ci yeneen ak yeneen ba xam ko waaye ñi nga xam ne tey dañuy doon di jug tey it xasaay yi dafa métti ndax boo ci duggee lu ne ngay dégg danañ la wax gëmoo dara da ngay taxawaalu jëmoo fenn ndax ñun ñëpp kenn ku ne jaar nga ci yu mel noonu dangay dem ba bala ñu lay nungul dañuy dem ba ci kanam waaye njëlbeen gi moom da nga dégg ne kon nag ndaw ñii ciy doog di dugg lii tax ñu encouragé leen ñoom ñoo ko ñi bokk ngeen ci lii ngeen lii ngeen di def ni bokk na ci mooy di leen ci woo di leen wax ne ñu góorgóorlu di leen invité nit ñi di leen xam jàpp naa ne loolu bokk na ci li nga xam ne bu ñu ko defee ah, dana gën a yaata liggéey bi tey sëñ Tuubaa waxaan na ne mbindam mii nii képp koo xam ne la mu waxaan ne karaamatu xattu di sama karaama mooy sama mbindum loxo daan ne lépp lu ma am itam ci xasida rek laa ko amee nga xam ne tey jii képp koo xam ne bindal nga ko téere lam waxan ci Mawaahibu Naafi aw xuriyaat aw kut aw aw kuti aw aw xuriyaat aw nisiraat aw aw kutibaat lam waxan ne ku bind mbaa mbaa mbaa nga xool ko mbaa nga jàng euh, noonu mu ko waxee woon nga xam ne tey boo bindee yow bokk nga ci ñi ñi ñi yaatal loola soo ko jàngee bokk nga ci loola soo ko xoolee tam tiyaaba jooju dana la ci fekk yéen itam lii ngeen di def àdduna mën na koo gis kon japp na ne bokku na ci ni ni ni buñ ko defé émission jankat yo xam kuko kuko kuko kuko kuko deg geussu lola ko dégg di émission ba ba xam cam señ Mamor ba man ko contacter bokku ngi ci kon ñi tassar liggéey bi ak fu mu ak ci aduna bi kon bokku ngi ci ñi tasaare lola lolu moy kon li nga xam eh, ñoo ngi leen ci sant di leen ci ñaan bu baax itam di leen ci encourager mu dem ba eh, sid yi ngeen am mu nek ay télévision yo xam aduna bepp ñu ko suivre te yalla man nako ndax ñi fi jaar ñepp itam ci yu melni rek lañ jaar ba yàlla defal leen lim ne defal te jàpp naa ne seen site bi bari na ñoo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel kon nag loola euh, émission yi ngeen ci def yàlla ngeen ci am lu taw feexe ba nga xam ne li ngeen ci yéene lépp ngeen am ci lu kawe njort loolu laa leen ci ñaanal bu baax. jërëjëf sëñ Mamour kàddu yi wax dëgg yàlla am na solo lool ni ma ko waxee woon rek am nañ mbégte bu baax dalal la ndax woyof gi ak jox ma jox cër bi nga xam ne jox nga ko cër doomu aadama ñun xam nañ la baax sorewun suñu kër a ngi fii waaye ban ba ba ñuy dugg ci njàng ban la xamee nan la xamoon ba léegi mosoo sensé benn yoon kon ñu ngi lay ñaanal yéen ji nga xam ne am nga ko ci xaside yi yaa ngi ñii ñëpp yàlla la yàlla ak Serigne Touba bàyyi fi nga àggale li nga bëgg a àggale lépp ci barke Serigne Touba xaside yi site bi nag tëjaloon ko kenn comme ni nga ko waxee ñun xamee woon bu mag bi ak bu ndaw bi jànkati lañ ko fi lañ ko fi tegal bañ nañ ko man mii def émission bi jànkatu xasaayit la xam ne dinaa dugganteeg ñëpp moo tax ñu jox ma ko. ci sëñ Mara laa ko njëkk a tàmbalee balaa maa demaat fenn ci yow mii laa ko laa ko tollante kon noonu laa koy tëjal noonu laa koy ubbilee jànkitu xasida yëpp di wax ne képp koo xam ne am nga bis boo ñu ci woowee dinañ ci ñëw avant première rek lépp lu jóg wàlloo ci wàllum diine bi yëpp waaw ñun ñoo ko yor te bu soobee sëñ Tuubaa Mbàkke tëjaloon suñu bunti kenn jànkatu xasida tamit boo xam ne am nga am nga sa bis boo ñu ci woowee bu soobee sëñ Tuubaa niñ ci war a taxawee dañ ko ci taxawee sëñ bi daal loolu la ma wax nee na ma teg naa ko ci sa jëfee lu ma ko benn jàngkat kon nag ñun ñoo ci mën a jàpp ndax site bi bu ma juumul bu suñ maaraa bi dañ ko mujjee xool 3 millions nit seetaan na ko kon xam nga loolu du gone fu ñetti millions ngi nit di xool loolu du kon nañ koy xoolaat bu baax a baax te ci te jàpp ndax yëfi jàngkatu xasaay la ñun ñëpp ñoo ko bokk kon sëñ bi damaa dañoo am luñ ci bëgg a mooy njàngu mag xasida gu la neex nag yow yaa ko njëkk a tàmbali ci njàngu mag ñi nga xam ne boo jàngee foofu la ñu koy posé bu ñu demaatee ci beneen jàngkat mooy mu jëlaat noonu koy toppoo rek genn xasida nag lay doon yow nag sëñ Mamoor Ceew lañ koy tàmbalee yaa ko xasida gu la neex ak njàngu mag noo ko jàngee rek ñu continuer ko noonu. موي الرسائل موت الفداء موي المنازل بعد الوفاء موت الفداء وسل بعد الوفاء

ساتا جودكم كل بجود جود فوق حبل الوداد يا من فعل بالغير حبل البرار عبدا سرورا لكل واذكر خلال جد الليل في الأمان واسل بارا جطت دي في جوره لمن يرى عن السيال من الدلال وعب الله حال زرع حين تبال تاب يا سستيرا يا خير ربي خير المراد دا يفتح الباب جلي واسل على المقام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 moo ñëwoon fii seen émission ëttu jànkatu xasaay bi seen émission murit point info tey jii ñu ñëwoon sëñ Mamour seet si ko waaye wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool am nañ fi mbégte lool sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo am fay yàlla am fay ndax wax dëgg yàlla bi ñu ko woowee yombalal nañu ko lool wax dëgg yàlla ndax ñu ko woo rek mu ne ma yow sama rakk nga sama xarit nga loo bëgg ci man lu ne rek day day yomb kon yàlla na ko yàlla ak sëñ Tuubaa Mbàkke jàppalal lépp ci sëñ Tuubaa ak bi